ok sama gars yi bala ñoo tàmbali nag te dañuy commencé ci Papito Kara Papito Kara mën nañoo wax ne benn jeune la pour yéen ñi ko xamul bu nekk euh, Facebook di def ay revue de presse yu neex te ànd ak comédie maanaam bu actualité amee def buzz day xool commentaire yi ci gën xoromu mu def ci revue de presse di bëggal nit ñi te lépp ci comédie la koy defee ak respect gu ma sëkk li nga wax mooy dëgg kon tey jii Papito bi ñu ko jàppee ci mbirum revue de presse yi na ñeneen ñu war a topp. que di topp ay ñoo xamante ne dañuy mbalak si biir euh, euh, nu mu tuddati euh, c'est pas pour minimiser. mais man yaakaar naa lii Papito Kara def. ça ne méritait pas une arrestation franchement. parce que c'est pas la première fois ñu jël ay revue de presse. waaw waaw di tooñ ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa nguur gi wala opposition bi. kon man je trouve que c'est vraiment exagéré de de faire une arrestation. dëgg du romb nopp. pour man Zal personnellement agression baa ngi fi bëri lool ba dee. nit ñaa ngi reyante si mbedd bi. yeneen mbir sax. Hmm? yow nga topp di jàpp ñi nga xamante ni dañuy def humour ci réseaux sociaux yi. reconnaître mais ak jamono buñ kafatul reetaanatul la ñuy def ah a xanaa ñu jël suñu gracier rek dem toog ci armée ne deenañ deegu ndaw li nga wax mooy dëgg man Zal maa ngi ñaanal yàlla na la yàlla tegal natt bi métti na trop nag chaque jour qu'on dort qu'on se réveille y a de nouveaux dossiers jigee ci loolu nag gars <laughs> ma ne élection yi jël am na wala amul. pourquoi. ndaxte depuis dimanche lañu woote te ba léegi dégg ko ma ñu joxe résultat yi. ah. moo tax may laaj. looy laaj. li may laaj mooy kan moo gañe élection yi. billaahi Macky dañ koo gañe. nga ni. barke alxuraanu Karim dañoo gañe. léegi. ah dégg yow nga ne ñen ñoo gañe. la Benno Bokk Yaakaar a gañe. xanaa déedéet kay. muy yéen. kon de dëgg-dëgg affaire yi luus na. problème yaa ngay démarrer problème yaa ngay démarrer. problème yaa ngay démarrer mos. ferme-moi. mais man damay dellu di laajaat. looy laaj nationale total bi yëpp ñaata député la. 565. 165 lan. député. Légui bo 83 députés nak. donc tu as. tu as quoi. la majorité. Damn! voilà ce qui se passe donc au moment où je vous parle. ouais. ouais. l'intercoalition Yewi à la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. ferme-moi. ah bon kon yow da nga bëgg wax né Yewi ak am nañ majorité bir Assemblée nationale. c'est pas vrai. Mouni.

Mimi aca taxaw leen taxaw leen taxaw leen taxaw leen ferme ok tata Mimi naka nga gisee élection yi ak li Sénégal di wax ne à tout moment yuuxu mën naa jóg fi ñu ko fëgeewul vraiment dañ ko dañ ko dañ ko tënk loo leen tënk noonu vingt-neuf départements sur 46 waaw yoo xam ne ñoo ko gagné kan yéen kon amul lu ñu mën a werante foofu ci ne Benno Bokk Yaakaar am na majorité ok léegi yow tata Mimi yow rek la ñuy déglu limal ñu vingt-neuf départements yi ñu xool gañe nañu Diourbel. waaw. gañe Fatick. Mhm. gañe Foundiougne. waaw. gañe Gossas. gañe Birkilane. gañe Kaffrine. gañe Koungheul. gañe Malem Hodar. gañe Guinguinéo. gañe Kaolack. gañe Nioro. gañe gagne salem mata, gagne Kolda gagne merida Yoro gagne velingara gagne luga gagne gagné gagne Kanel gagne Matam gagne Ranérou gagne Dagana gagne Podor gagne bungini gagné Goudomp gagne Bakel gagne Goudiri gagne kupendu gagne tamba gagné gagne lamb na toog lii lamb <laughs> léegi yow tata mi taxawal yow kay da nga bu wax ni yeen gañ ngeen fepp rek. non lolu lolu nga li boy nan wax ji yakku la. wa battali mi. suma bat ci kaw. naka nga gisee li tata mi wax. soxna si kilifa du fen. muni mi ngi ñaaw de. li mu wax ni ñom ñoy majorité bi xanaa daa nekkul noonu. no Bokk yakkar est minoritaire dans ce pays et la cohabitation aura bel et bien lieu. i minoritaire nak? deug la. kon kay cohabitation day am. cohabitation mënul am parce que ñooy majoritaire. ah. léegi yow maître da ngaa bëgg a wax ne Mimi ak Barthélémy kan moo nekkul ci dëgg. fenkat bu njëkk bi c'est Barthélémy Diaz. i goro moo. yow kenn warul laa déglu waxuma la di la dégg ay micro wala di la jox ci ay plateau nga di fa toog. kii dof pilis la. ah dee waay dee. <laughs> te pour moom yaakaar na ne dëkkandoo du am. dëkkandoo moom fee assemblée nationale. waaw waaw dëkkandoo na am. no man personnellement njortoon naa ne dëkkandoo moom faaw am quoi. dëkkandoo bi nag moo xam. Euh, deux chambres salon moom day jël chambre salon ba. wala day yem ci chambre avec cuisine bi waaye dans tous les cas mbagg ak mbagg lay doon mbagg ak mbagg tànk ak tànk lekk ak te bo xolé ba ci bir li sax nekkatul cohabitation léegi lii hébergement lay ndax te cohabitation boko ko da ngay am sa nek ma am sama néeg nga am toilette ma am toilette nga am sa waañ ma am waañ mais instant bi man hébergement lay gis de c'est pas vrai mais pourquoi maître amee defet du nangu ne daa daanu moo ma jaaxal ok xaaral moo sax pergas quoi pergas moom donte tàng na xol quoi mais nitu dëgg la dëgg du rombi nopp waaw mais pergas naka nga gisee seen parti bi ak élection yi dënnoo duma duma ba nuy bëgg a dee déen waaye pergas ci bureau yi de bureau yëpp la nu gañe est-ce mi ngi ñaaw de waay waay nag bi jël ban façon jël la nag xamante ne jël la ween la. ah. ween bu daanoo sa tengoo saa ko yëkkati. <laughs> lii de la olof Ndiaye naan mbër buy daanu cuune lay doon. loolu moo dal benn bokk yaakaar. xanaa déedéet kay. c'est fini. pour kan. pour Macky Sall. ah. faut pas di ko c'est fini. loolu de ragal na siñ la bu ñu wane pouvoir bi perte dëgg du rombi nopp mais pouvoir buy daanu sax nan la wara mel day mel ni kuy yëgal bëri ko ci ci montagne askan bu and ak opposition ba nak day nekk ci mbartal manam day gëna a rek mo taxit wallahi ku yab sa peuple da nga xamul il faut qu'on respecte le peuple xam nga ne yab sa peuple mënul wessu wa wa election yi jeexagul nga woote sa conférence de presse ñu tàllal la ay micro pour ñom ay manipulation la nga nekk fa naan yaa gagné trente départements sur 46 même 30 départements yi boko ko dajalee matul quarante députés mais c'est honte peuple bi faloon président 2012. moo wàññi ay cëram. élection locale yi. gën koo wàññiwaat ci élection législative yi. jox ko ku ko neex. am na wala amul. waaw loolu dafa leer. ci nangu seen doole directement lañ jëm ak yéen 2024. ah. te bala moo yegg foofu nag war naa taxaw poser question boppam ne pourquoi saa yu demee élection rek ay voix am wàññeeku. dul dara dul njëg yi yokk. surtout dundu gu seer googu instant bi ñëpp xam ne ne lépp a yokk. li ak nit ñu wor ña ñu àndaloon transhumance à l'instar de Bamba je une crédibilité. bureau pour voté sénégalais am mais de l'âge âge man j'ai 91 ans ah? et je suis fier fi dëgër dama koy crier ba ñëpp dégg ko kon boo crier Mame ba ñëpp dégg ko yow looy def noonu la looy bëgg a def noonu la waa Aysatu ana sama papa Mansour Faye mbaa affaire neex na ci moom rek Mansour waaw waaw ñoom ñëpp àndandoo nderteelu ah waa ana mu moom sax eh papa Mansour yëg naa la pourtant man damay laaj rek de déedéet déedéet du bëri tontu <laughs> mi ngi ñaaw de. ñaaw na ba noppi. te day gën a ñaaw. sandwich. <laughs> non jël bu nekk moom mës naa ko gis mais façon jël bi moom mosu fee am. mosu fee am moom wax dëgg yàlla. li gën a yéeme ci mbir mi. waaw mooy équipe bee moo leen duma. mu ni. remplaçant moo leen duma. lii ne bu ko métti El Hadj Diouf déggee dina mel ni balle perdue ci moom. ku fi pistole ñu pistole sa ndey fii. mu ni. ku fi menacé ñu menacé sa ndey. eh eh eh taxawal maître yow yaa ngi exagéré de. ku bëgg taal sa gaañu taal sa ndey. taal sa baay taal sa yumpaañ. Ah, mais c'est honteux ma xala mom ñi rek la mën a mel gémmiñ gi nàcc moom du tala wax jamm. Ki dof pilis la yow dal mën nga ne saa yu la talalé micro yi ba talal la caméra yi rek lu la neex wax yow société bi sax amo fi place gis nga yow sa place fan la nekkon parc an gee tu ressembles aux animaux sauvages madame s'il vous plaît en wolof pour ñu déggul français yow buubu ko la ci ya ci parc an gee ngay nuróor ku la fa fekk dala fay bàyyi Ta xamni ne fay sa place <laughs> ki kay kon ken waru ko wala diko dekk ay micro. wala dila jox ci ay plateau nga difa tok mais heureusement ba wa senegal xam nañ la. xamé la ba xam li nga bëgg. do sande. do wax katu deug kon kay ki jarul deglu non non. man sax duma fi nek di sante ak mom wala may benn benn la ak mom maa ngi koy bag yeen ñi nga xamanteni yene commenter s'il vous plaît ku dik rek lo xalat rek yakal ma quoi. ah de way de waaw man de li la wax. mbaa yéen loolu ngeen wax. Ah, man ñun lii nañu mën a wax Ndoye Ndiaye. bu ko defee ñu jox maam mu ñaan ñu tasaaroo ba beneen yoon. amiin. ferme-moi. <laughs>